que tey li tafaatin li top tafaatin tey bu nu ko tegee ci yoon war naa mën a topp kewel mën naa topp bursin mën naa topp mor kankang mën naa topp mbay guy gi mën naa topp tafaaleer mën naa topp njaaxum mën naa topp mbir yi fi nekk yëpp bu ma limee damay juum man loolu rek moo nekk sama liggéey pour que ñu gëm loolu parce que tafaatin boo xoolee lu mu waroon a def ci làmb rek mën naa ne def na ko parce que yàgg nañu ci làmb ak euh, ak écrit bawol ñu dem ba écrit bawol jur bawol mbooloo boo jur école de lutte Badajon écrit Cheikh Mbaba ba ñu nekk ay écris yu bëri xaj nañu puus Tafa ba mu agsi fii te yaakaar naa tey la gën a yomb parce que Tafatine daaw a bokk ci ñi nga xamante ne nii dañoo war a puus xele yi pour ñu gën kon xele yi li ñu am Tafatine amu ko woon kon nag dañoo war a góorgóorlu rassembler supporters yi muy Bawol gépp supporters yi Medina yëpp di rafet lu it maanaam 1000 euh, pour cent bi Medina def. parce que Médina ak Bawol ndox ak suukar la mënuñu leen a séparer di ci gërëm sunu mag Kayre parce que ñun làmb ci moom la ñu ko gisee man moom laa jëkk a entraîné te xam na ñu xam xam nga te li mu def nii de di lu rëy te bu Bawol àndee ak Médina samedi ñu départ dem porté ji bébé Diène vraiment tey bu paree promoteur yëpp dañuy daw ñëw bet set ñu dem supporté Tapha Tine mu daan ñu waajal Diène Kayre njaaxum mbay guy gi kewel ak seen com sunu combat yi di ñëw ba ci Gris Bordeaux ñoom ñëpp ñu ñu jàppale leen doon benn daal kon heure bu ñu demee ci làmb ji mbër bu dëkk Medina tey war 300 millions yow yaa ko war a njëkk a bëre fii. parce que danoo boole Medina ak Bawol te du ñu bëre te ñoo bokk même supporters yi. li am rek mooy Kairé maa ngi koy lancé appel xam ne li muy def ñu ngi koy rafetlu te ñu ngi ci cent pour cent ñu nag président Bawol gi nga xamante ne nii mooy falu fay man ma jiite Bawol sans frontière nga xam ne dama di coordinateur bi nga xam ne damay boole écrit yi nekk ci Bawol ak Médina maa ngi lay yobante ci Kairé waaw ñu xam ne ñu ngi taxaw te jéen dina dinañu taxaw ci moom ba mu daan Sarko parce que it nag revanche la Sarko daa dikk Medina daan mbay guy gi dikk daan Ada bu dikkee jël jéen kayre waruñoo sagana sagana sagan ba mu war fee mën a daan ñetti mbër kon ñun danoo war a sot bésu tafaatin bi nag bawol pakku làmbaay bii ci buntu pikin def nañu loo xam ne ci combat tafaatin bi daanaka ñun ñi jóge fii balaa ñuy dem fekk nañu ñu fees stade ba kon woo nañu ma ci ngoon nel ma ñu ngi préparé waat kon nanu jàppe noonu maa ngi gërëm ñëpp di gërëm Bawol di gërëm Medina waaw non non waaw si non danoo bëgg a dem feesal stade ba del ku dee côté bëre bi la moom nanu ko bàyyeek entraîneur yi parce que man tey fi ma taxawee mooy fexe rassembler Bawol médina ak bépp xeetu séeréer ñu ànd ak bépp supporter Tapha Tine ci Sénégal ak diaspora bi ñu ànd booloo dem supporter ji ko mu daan dellu si. Euh, mille pour cent Médina bi dafa léegi téléphone. waaw dañoo dañoo yëgul woon nag ñoom dañ ne léegi Tapha dañ bëgg Tapha ñëw bokk ci parce que Tapha ku wax Tapha ne Médina. non loolu pare na parce que wax naa ko. mais yow newoon naa lépp lu def Médina. da cay taqari. loolu pare na parce que nun Médina la ñuy jàngee ñi ci ëpp. ñeen ñi di liggéey fi la ñu dëkk fi la ñu yaru fi la doom yi juddoo fi la ñuy yaroo suñuy doom fi lay jànge mm-hmm. kon lu ñuy def Médina kenn ñu ca jiitu parce que Médina Médina bu jagee ñun mm-hmm. la jagal te wax naa la ko léegi man may président Bawol mbooloo écurie Tapha Tine lépp lu ñuy def ci Bawol lu ñu des ginnaaw surtout nag Bamba Fall dañoo yàgg di jàppale dégg nga bu baax li wax te ñi nga xamante ne dañoo nekk population Médina yi mm-hmm. dañoo jël Tapha def ko seen mbëru bopp kon ñun kenn ëppalewut ñu ci 1000 pour cent. léegi waaw 1000 pour cent nee na ñoom bu ñëw si combat bi nan la ñuy def bu lanu dañ bëgg ñëw sànni seen bopp ci biir combat bi bu baax a baax. man mii maay président bi. kii mooy président 100 pour cent Bawol. boo gisee jon gis nga ma. boo ma gisee gis nga jon lu ngeen bëgg a def ci combat bi. bu ngeen ñëwee ci ñun ñun ñooy encadré xale yi. utal leen ay billets utal leen ay car ñu feesal làmb ci. une question rek ci Père Bada Dione. lamb ji sax waxuñu fees dañoo bëgg ku yeex doo am place. dégg une question rek ci Père Bada yaakaar naa ne jël si woon naa la sa place nga ne ma armes yi ñuy yóbbu geer duma ko wax mais tey Tapha Tine dafa dugg si uniforme boo xam ne ñu bëri da leen a xaw a impressionné. ngay bëre ak poids lourd bu toll ni Bombardier ak poids bi nga xam ne Tapha Tine yor na ko bu ñu jàppantee ci bëre est-ce que xalaatoo ne pour nga manipuler Bombardier ak poids lourd bu toll ni Bombardier. waaw de dégg may rek. Mhm. ma gërëm Bamba Fall parce que nag sama xarit la sama doomu ndey la te it gis nañu liggéey bi muy liggéey ci Medina di gërëmit it Cheikh Tidiane Ba ak Seydou Gueye ak mboolem autorité yi nekk ci Medina ku lim da ngay juum daanaka mais boo tuddee Bamba Fall Bamba Fall Cheikh Ba rek résumé nga lépp ñu xam ne ñun waa Bawol gépp daal li doon sunu sunu objectif mooy. ñoom Boy Kayré mille pour cent ubbi nañu yoon wi ñu nit danoo bëgg a dikk taxaw ànd ak ñoom ci lépp loo xamante nii day jëme Médina kanam lépp loo loo xamante nii day jëmee doomi Médina kanam ñuy ñaan booloo jàppale waa Médina ba nga xam ne tey Médina war naa mën a am président de la République war naa mën a am premier ministre te loolu yëpp gars yi ma gis nii am nañu fula si am nañu jom ji am nañu fit wi tey ñun waa Bawol ñu ngi taxaw ci seen ginnaaw pour Medina jëm kanam li nga waxoon question bi. question bi mooy comme par exemple Tapha bi mu dugg see tey. ak forme bi nga xam ne moom la indaale dafa xaw a impressionné ñu bëri ba ci presse bi. tey ngay bëri ak poids lourd bu toll ni Bombardier tey boo ngeen jàppante ci bëre est-ce que xalaat nga ne pom poids bi nga xam ne Tapha Tine na ko war na cee war a mën a manipuler ci Bombardier. Tapha Tine bi muy téye Bombardier Bombardier mën da bousee mu di ko door mën da dem mën da dikk boobu Tapha toll nii Tapha Tine poids doole yaax la mais ndox mi ngay jël ak graisse gi daanaka amul njëriñ ñun ay sportif lañu doole Tapha mu ngi soog a yor doole pire mooy li nga bëgg a def nga mën a dikk def ko dem sa yoon mais poids bu bari bi te du doole da lay diisal rek loolu moom xalaatuñu ci parce que Tapha ba muy dajeeg Bombardier booba la Bombardier ëpp doole fuuf te ci diggante bi Bombardier dafa wàcc Tapha dafa màgg. ba noppi liggéey lu wóor Tapha bu amee lu muy yaar ci mbër fii mu toll ci Sénégal naa mënuma ko daanaka mën naa ne jaat mën a bu nu toppati sama gannaaw man li ma gëm mooy képp kuy takk ngem fii maanaam Tapha Tine war da def ak yow lu pa dix minutes parce que mën na bëre mën na xeex ànd ak ay bokkam ànd ak Medina ànd ak Bawol ànd ak bépp xeetu séeréer. toujours ma jël ci lance bi mu wax mel ni dafa ñëw pour xeex que ah. est-ce que est-ce que est que xam nga ne wàññi poids yaa ngi koy wax xeex mais wàññi poids bëreel bëree tax ñuy wàññi poids de parce que boo wàññee poids mën ngaa bët mën ngaa teq mën ngaa mboot dala du la imposé mën ngaa dar ñaari tànk ku wàññi poids kay bëre nga ci war a gën a xalaat. mais Tafa am na mbër yoo xamante ni lenay am rek da ngay aw ak moom fii bu dëgëree nga aw fee parce que bëri door la ñu wax te ñaari yëpp ñun pare nañu ko daanaka leen taxut ñu wàññi poids lu bëgg a dikk rek daan. sama dernière question mooy bëre ngeen bëre ngeen woon combat royal 2013 bu ma juumul. est-ce que jàpp nga ne boo leen jógee ci combat bii nii war na ubbiwaat seen beneen buntukaay boo xam ne war na leen mayewaat. pour ngeen bëre beneen combat royal. loolu dafa leer que ki yor roi bi génération yëpp ñun la ci bëree dëgg kooku daanaka jarut mook booy ñaa ñoo koy bëre booy ñaa dañu ko amee rawaas moom mës na bëreek ñun waa ji kay ñaanal ñu ñu daan ko rek bu nu ko daanee amut kenn ku xej ci diggante boobu loolu moom daanaka biti la fanaan parce que ku jee ku jéem a aw ah, non kii yor roi xam nga duñu koy wax nga wax koo xam ne jegeegul roi ama bu ama ama na fexe yor roi fii mu toll parce que ñun ki yor roi la nu visé parce que tollootuñu ci ay feyook ay kii del noo juum la woon parce que lam moom daan naa diw daan naa diw di daan na ma ñi yor roi gi ngay gis nii dañu leen a daan ba nu tas te ñi leen daan a ngi fi di dund waaw ah léeg nga gis ku leb boy sax da doo ko fay parce que di nga gis doo mber nga bëre ba dépassé ko ci lam parce que Gris Bordeaux Abdou Diouf <laughs> giri daanu doon Abdou Diouf topp na ci booy bo giri jaarloo ko ci Maodo mu bëgg a dikk Maodo daan ko mu dem nit dina la leb bor bëgg koo fay bëgg ko fay toppaat sa ginnaaw sax say rak fay fayekul la ko mu jeex waaw parce que yaakaar loolu moo nekk